Abdou Khadre Sanogo maa ngi lay nuyu. maa lay fay. voilà Abdou Khadre Sanogo nga nekk euh, sociologue euh, d'abord ma lay laaj naka nga analyser bari bi nga xam ne accident yi ci kaw tali bi bari na ko gis nga drame euh, bu Sikilo bi yóbbu 42 wala 43 personnes ak tamit bu Sakala bi faat 22 personnes ban jàngat nga ci am. jàngat bi njëkk mooy ñun ñëpp dañoo gëm donc suñu borom bu dogalee moom. nangu moo ci am mais su loolu weesoo nag di ci am nakar ci la fekk Sénégal ak ni mu méttee ay nit dund nekk ci ay jafe-jafe yu métti mais teewul ñu jafandu mu metti ñu lekk ñu naan ñu faju ñu ngi jafandu rek mais amul kenn ku leen di jëlal seen bakkan lu dul responsabilité ay nit ñi ñoo xam ne nii lu dul seen xamadi lu dul seen ñàkk yar lu dul seen lu dul seen dofet moom moo leen yóbbu ci daw mi ñu warul dawee njëkkante teg oto bi lu mu àttanul ba teg ay jàmbur yoo xam ne nii ñu doon liggéey ñu ngi dem seen njaboot ñu ngi nekkoon ci buntu àdduna ñu fexe ba yóbbu leen te loolu la loolu laay teg ci mbaggu sénégalais yi ci teguma ko ci oto bu yàqu teguma ko ci sécurité routière dama ko teg rek ci xamadi gu dëgg dayoo yu sénégalais yi xamadi ci seen ndox rek boo xam ne nii foo ko takk weesu la nit ñi ñu ngi sol ay rafet bis bu nekk mais foo takk si ndafuk sénégalais bugguma ko woon wax sax sànq ba léegi maa ngi wax xamadi mais xamadi sax doyuma reewande laa leen wax foo takk reewande ak sénégalais yi ñun ñëpp ñu ci ëpp bokk foo ko takk rek weesu na ku mu neex da ngay dawal oto di lekk ku mu neex da ngay dawal oto di sinap ku mu neex da ngay dawal oto di xool sa téléphone ku mu neex da ngay dawal oto doo takk ceinture ku mu neex nga nekk sa coro wala sa jabar di teg musique à fond mais loolu nag laa ak dispositif mesure yoo mën a teg fii loolu amul benn état bu mën a teg benn gendarme wala policier ñun kay ñoo war a defar suñu toogaay dafa taxaw seetlu ñu ñu ñu laajaat suñu bopp ba xam est-ce que war nañ mel ni ñu war a mel réew mi benn burkinabé wala benn ivoirien du ko doxal ñun senegale yi ñoo ko war a doxal te ñun sénégalais yi nag dëng nañ benn façon dëng boo xam ne ni suñ ñu jubbantiwul ala kulli yi ngeen dégg man waxoon naa ko fi de toute façon ñu traité ma de pessimiste lii dañ koy wax ñaari yoon mu jàll mais yeneen yu ko raw mi ngi ñëw yi parce que ñun ñii sax ñi ñu mag ñooñu ñooñu gën a encore amati sikk ci seen comportement ak seen i doxalin te loolu nag bu ñu defalul taxaw seetlu lii Serigne Cheikh doon wax ñu sangaat réew mi defaraat réew mi waxante ay dëgg defaat suñu toogaay Sénégal Sénégal mi ngi jëm directement ci miir bi te su ko mbëkkee dina miir ba du am fu mu taxaw. léegi yow gis nga ni kon mesures yi euh, gouvernement wu Sénégal jël amul njëriñ ci xeex accident yi. man maa la wax ni bis bu mesures yi laalul sénégalais bi mooy au lieu que nga koy wax six mille francs contravention nga ni ko trois cent mille te permis jàpp salaire dagg ko à la moitié ñëw biir këram jël biir yi mu am yëpp nga teg ci sa loxo. parce que tant que teguñu sénégalais moom moo xam ne nii moom xam nañ lu ci génn doomam ci génn jàpp te gis nga jarul sax tëj kaso. ñoom sénégalais yëpp xaalis ci seen biir xol lañ ko def dañu yoo xam ne nii même boo ko amul ñu la koy dagg à la source fin du mois su jotee ñëpp di fayeeku nga fayeeku vingt cinq ñu jël sa salaire yëpp dagg ko dugal ko parce que da ngaa def ay naka sudul noonu su boobaa dinañ defaraat taxawaay bi mais ay jox la six mille soo fayee six mille dafa wala sa mbokk fayal la six mille loolu du dem mesure yi li mu war a touché la touché wul mesure yi dafa war a touché Sénégal bi parce que sénégalais bay dawal oto parce que sénégalais yi la moroomam di dawal oto te sénégalais bi dafa am tëxët boo xam ne fonkul moroomu sénégalais alors que nit ñi dañuy juum naan sama moroom ci laay basé wu pour mën a yokk sama bopp njuumte gu rëy weesuwul lool en sa moroom mooy sa commencement wu dund te soo bëggee ñoŋal sa dund da ngay jox cër sa moroom sénégalais yi nag seen bopp rek d'ailleurs loolu la ñuy bopp sa bopp man sama boppam la gënal du bañ naa loolu nag sentiment boobu tant que ñu ngi continuer di ko am mun ñu mënuñu mënuñu mënuñu laabirante ci biir tali yi te suñu laabirantewul gis nga su may dawalee di takk sama ceinture. Mhm. au delà de sama bopp maa ngi koy nekk pour sama morom gis nga su may concentré wu si tali di dawal weesu na sama sama bopp ak sama njaboot dama naan ah am na koo xam nii de mi ngi xëy di wuti ji am na loo xam ne suma ko fàggandiwul soo deful nag mun naa ko daal yàqal ko njabootam yàqal ko projet yàqal ko donc nit ñi ñu xalaat loolu ku ne yow yaa ngi xalaat sa bopp waaw loolu nag su amee ci réew. war a ci dolli ñi ñuy ñi nga xam ne ni fi ñu deful lu yoon ñoo ñu war a teg ci yoon léeg-léeg ñu am fu ñu jaar ak ñoom damay ba a tudd seen tur wala ma tudd seen i fonction mais loolu suñu deful de telle sorte que boo ñëwoon man ma taxaw ci tali soo mu mbuxumoon à deux millions ma may ne li nga def du noonu parce que li nga def nii da ngay mettre en danger la vie d'autrui donc dama lay bindal contravention yooyu bu fi bu ñu bu ñu deful telle yooyu teñ cest nga teg say mesure ba kii war a surveiller amaana est-ce que ni mu war a surveiller dina ko surveiller ki ñu war a surveiller est-ce que ni mu war a doxalee dina ko doxalee est-ce que su newoon ci feu rouge à trois heures du matin dina ko respecter wala du ko respecter mais réew mi gendarme warul la kartam tant que policier warul la kartam doo doxal yoon suñu la xool ba ci classe sax laa la wax nii da ngay tricher tant que prof baa ngi taxaw doo tricher su la wanee ginnaaw nga tricher loolu nag réew mu mel a interroger ak seen bopp ñu defar taxawaay ñun ñëpp taxaw ni nag man mi koy wax ak ñi may dégloo ñun ñëpp am nañ suñu part de responsable léegi ñu seetlu Abdou Khadre Sanogo ko réew mi su amee benn mbir dafay mel ni luy répété wu lu baree bari si un benn période bien déterminée comme temps yi gis nga accident yi ñoo bëri am na yeneen jamono lakk yi ñoo fi bari woon wala soxna yi nga xam ni seen boroom kër da leen di faat lan la yow ban jàngat nga am si loolu. voilà am mooy loolu moom scientifiquement raison mënul expliquer nii lan moo tax lii lan moo peut-être mënoon xam nga. wax nit ñi ne ñu toppandoo ci dee xam nga loolu ñu may woo ko wax. Mm. ñun am nañ ay procédés yu ñuy tuddee imitation ak contagion sociale maanaam toppandoo ak ñu wàll. xam nga nit ñi mën na la mën ñeen ànd ba mu wàll la comportement mais nag ci mbirum dee moom li ma la wax ni accident yi dañ koo dégg ñii dañ koo commencé def après ñu def ko moom non mënoo ko wax donc peut être que anthropologie ngay def anthropologie mooy discipline boo xam ne nii moom day jël affaire yi mu tënk ko ci léegi nag du point de vue anthropologie da dégg naa ñeen ñi am yenn xam-xam yi ne fan yi réew mi loolu déggoon avant ay problème di am kam déggoon naa ci réseaux sociaux yi ay nit ñuy artu ne bàyyi leen bool yi ngeen di tëgg ndax day yee yéen i bàyyi leen casserole yi ngeen di tëgg parce que day yee jinne yi loolu de am na borom xam yu ko waxoon te lañ waxoon nag soo ko méngaleeg li am dafa mel ni ñu a am raison si ñun mais ñun rationalistes yi nag mënuñu tënk lépp ci ay affaire wëy casserole da ngeen a yee jinne li ci daa xam ne ñu ma ko diñ mooy ñun sénégalais te gis nga loolu yéen yéen a wax répété wu rek peut-être que moor yi dafa bëri nii Mm-hmm. mais am na instant yoo xam ne rayul kenn mais yàqal na nit ci ci ci blessure yoo xam ne nii tey fu mu bëggoon dem du fa demat te loolu yëpp ñu ngi ñu tënku rek ci boo amee sa oto commencé deew di dawalee loxo càmmoñ boo yoree moto di fërërëri di wane ne mun leen alors nag mbiru sénégalais la dañuy gis koo xam ne yàkkam ci naa am dara ba commencé dugal oto ci wane wu fekk ak dawalam sax taxul demee noonu. Mm-hmm. très sincèrement mënu ma ko mënu li ma ko li ma ko li ma ko nar a jiiñ daal mooy dama la waxoon ci njëlbeen dama damaa jàpp ni Sénégalais yi la ñuy def chaque jour moom la ñuy def te duñ ci jugee te léeg-léeg may wax sama xarit na leen Sénégal boo fi yeewoo suba dëkk fi ba guddi jot nga fanaan ak yeewu sante ko sa borom parce que entre ci biir journée bi lu ne ni ñu xewee foo xam ni ni su la sa sa borom tuddaal woon soo demoon doo fanaan parce que taxi yaa jël taxi boo xam ne ndekete sax sa ñeneen ñu ngi yëg jakarta boo xam ne borom jakarta bi jëfandikoo na seen bar boo xam ne yow xam nga ci dara mën na laa dóor ci kii bi mais dem nga ba egg suñu borom la neex yaa ngi dégg yaa ngi euh, di fréquenté ay route yoo xam ne route yooyu dara wóolu ci biir fin fond Sénégal am na pont yoo xam ne ay oto nga yooyu boo fa jaaree ba egg exploit la suñu borom rek la neex donc loolu yëpp nag man moom mooy faire loo comprendre que ah évidemment que peut-être dafa am ci yu ñu jot ak yu ñu jotul. mais man jàpp naa ne bis bu yàlla jot dina am ci wàllu accident wala wàllu leneen loo xam ne nii mënoon nañ koo wax ci yi mais xëy na parce que du am yenn nombre de morts yi nit ñoo ko du wax rek te loolu aussi ñu ngi tënku sunu na sax ci sunu sunu sunu toxalin ak sunu nekkin ak sunu tëralin hmm. na sax. léegi ñu gis ni climat social bi maanaam dënn yëpp dafa daal di jóg jamono ji euh, euh, ban explication nga si joxe par rapport ak loolu. quoi explication bu yomb dañoo génn ay jafe-jafe Covid 19 jaar fi. Mhm. Ukraine bi ñëw fi. waa adduna moo jafe moo jafe fépp adduna yëngu su adduna yëngoo nag te yow amoo ñu lay jiite ñoom amuñu xalaatu di anticiper maanaam di jël ay taxawaay yu mat sëkk yoo xam ne nii foo leen fekk ñu wàññi seen nalaw di yokk seen xalaat ci sama askan bi nga xam ni ñoo ma jiital maa ngi xool jafe-jafe yi su ñëwee bu ñu leen waree dal man laa koy woyofalee mais président Macky Sall mën na laa fal mais yow yaa ngi njëkkante noo amee juróomi kër noo amee juróomi oto noo yóbboo say doom ñu tukki noo dugalee sa biir gémmiñ ba mu fees nga ciy gën a ñokkali ba muy tuuru te xalaatoo ñu nekk ci suuf xalaatoo ñu amul ndox xalaatoo ñu amul courant xalaatoo ñu amul faju mais ñeewant ak yërmande googu soo ñu yàlla nattoo ñu ñuy jiite ñoom gestuwuñu li waykat bi doon wax gestu leen askan wi gestu leen ñi mujjee judd ñoom ku nekk ci kaw doo gëstu ñu nekk ci suuf waaye sa jabar ngay piis soo paree piis sa doom soo paree piis sa yaay yóbbu màkk kii nga yóbbu rab waaw mais réew mu mel noonu la te ñun suñu suñu amin doxe demewul noonu mais suñu eggee bu fii dañ koy yëg malgré def nañ ay effort ne yokk salaire yi mais pouvoir d'achat daf leen a jiitu te Afrique réew moo xam ne moom la doon dara sa bopp lépp dañ koy jéggaan mais réew moomu soo defarul sa toogaay amoo autosuffisance alimentaire lii moo xalaat ci yow bu àdduna yëngoo nooy def ba compter ci yow te doo compter sa morom réew mi man daara li xew ni bett ma fi de d'ailleurs am na samay prise de parole yu ma génnoon yàlla ci la six waxoon naa Sénégalais forcément fu ñu jëm ci ay moments yu tàng la ci ay moments yu tar la waaye nag lu mu tar tar tar xam nga kat moo ciy génn ki yàlla tàggat mu doylu ki yàlla tàggat mu tënk ay bëgg-bëggam ci li mu yor ci yàlla tàggat du jéggaani di xool lu muy dugg ci loo xam ne nii ëpp na ko doole ba lu mu yenu su ko yenoo mu diis mu toog ñooñu rek lu mu jafe-jafe-jafe dañ ciy génn te suñu may nañu ñu am ay mécanisme yoo xam ne nii buñ ko jaaree war ñoo mën a tàggat nit ñi ci loolu ba lii waykat bi wax coow lu mu yëngu-yëngu-yëngu yow da ngay kuul maasoog li nga xam ne nii moom nga mën ak li nga am mais sénégalais yi dañuy dugal seen gémmiñ bi ci xajul di yenu lu ñu àttanul réew mu mel noonu nag ci jafe-jafe at na ñëwee di ko yëg te su yëre soo ko yëgee di nga mais ñi yuuxu ñëpp mooy ñu doyee rek ñi doylu te xam fi ñuy teg seen tànk lu mu métti métti métti yàlla may na leen ak dal boo xam ne nii su mbir mi ñëwee ci ñoom ñu mën koo ñu mën koo ñu mën koo artandiku dernière question monsieur Sanogo di visitu Marine Le Pen fii ci Sénégal yow da nga koy rafetlu wala loo si xalaat. musuma koo rafetlu man rafetlu ma dara lu Marine lu lu lu lu Marine Le Pen teg loo xam xanaa citoyen du monde la man damaa am respect bu rëy ci nit mais Marine Le Pen peut-être rajo sax lañ nekk mais su ñu nekkoon ci conférence wala ñu nekk ci leneen su ma amoon caractéristique bu gën a garaaw ma jox ko ko parce que yàlla dafa def ndaw soosu amul benn cër ci nit ku ñuul yàlla dafa def ndaw soosu bu pexeem sotti woon nit ku ñuul kuy nekk sax Europe même ñi fa juddoo su sa noonu dañ lay pakkatet la ci paquet dégagé la nga dellu fi nga jógee waaw man nag yàlla daf maa may fulla koo xam ne ni bu ma yëgul respecté wu ma man respecté wu ma wala fi dañuy wax kumbaay bañ sàmbaay ras Marine Le Pen buggul nit ku ñuul nit ku ñuul dañ koo wan ni ñun ñoo ko gën a jéppi nit sax doo ko bañ nit ku ñuul dañ koo wax ñun ñoo gën a raxasu ci moom moo tax may wax sénégalais yi fépp fu mu jaar bu ko kenn teeru lépp lu mu wootee bu ko kenn wuyu te bu ko kenn wan teraanga Sénégal bi nekk fi comme ça mu ay dëbbatam ak ay kaakaam mu dellu fi mu jugee parce que ñun bu fekkee ni France daa neex ci moom ba mu jàpp ni kenn waru faa dugg ñu ne sunu Sénégal gi neex na ci ñun ba ku ñu buggul bu fi teg sa tànk am fi ñaari fan. man daal li may ñaan mooy Marine Le Pen fan yi mu def ci Sénégal yàlla na naqati ci ci moom ba mel ni kaan. <laughs> Abdou Khadre euh, Sanogo Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. man maa ngi leen di jaajëfal aussi. may fàttali ni sociologue nga tamit diplômé en sciences politiques. et